asalaamaaleykum mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen te nag ñu dikkaat ci beneen ponk boo xam te ponk bu am solo la muy leen ci wàllum miraas waaw defee ñu ànd ceeg Sëñ Mbàkke Abdou Rahman bu ko defee incha allah mu laaj bu am solo laaj bu jamono itam kii day laaj ne koo xam ne dafa sëngiwu ba noppi njaaloo waaye jotuñ ko ateb ateb sharia mu ne ndax kon su baayam faatoo moom day doon nu baayam. wala waru ko doon ndax day mel dafa jàpp ni kon waroon nañ koo rey daal moo waroon njëkk faatu baayam waaye yàlla dogal na njëkk faatu baayam <laughs> maanaa ku sangewu mooy njaaloo dañ ko war a rey sangewu mooy mas denc képp ku mas a denc soxna ba jaxasoo moom boo njaaloo te dañ rey sharia léegi nag koo xam ne loolu dal na ko fa mu nekk àtte charia doxu fa bu tuubee tuub bu sell na jàpp ba tey yàlla waxoon ne inna laa yaxfiru laa yaxfiru ay yusuf wa yaxfiru maa doona ma maa doona zalik de njaalo ci bàkkaar yu mag yi la bokk waaye ci yàlla mën a baale ci la bokk boo ko tuubee tuub sell yàlla jégal la parce que ndax am na xadis donte ay wax am na ci xadis bi yolu islam waxoon ne ku ci defati ñaawteef mi ba daa am ku daf ñaawteef mel ñu wax ko ko ñu raj ma ko wala ñu jël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 ñàkk gi ñu ñàkk rey xëy na paseem la boo xam ne mën na jaan tuub ndax bàkkaar bi mu def nag xëñu ko njureel gi doxoon digg ma bàyyi bàkkaar boobu digg ma boroomoon waaye àq yi mu amoon dara xëñu ko ci waa kay mbokk yi laaj baa ngi noonu gis nañ ne am na solo kon loolu moo nekkoon vidéo bi tey incha allah di leen dig daje ci sunu benn vidéo ci sunu beneen vidéo incha allah kon nag képp koo xamante ne am na commentaire ab laaj mën na ko def ci commentaire yi incha allah bu ñu dikkee dinañ ci gën a indi ak yaatal yaa ngi jëf nga leen di abonné